cinéma sénégalais yag am ay ndanan yag am ay réalisateurs yo xamni dañuy défendre li ñuy tuddee les causes sociales ci réalisateur yoy noonu ñu jëlé ko ci mag ñi ba ci ndaw ñi tay am ko xamni téena flambeau bobu noonu ñu wax Ousmane Maja mu def un premier film qu'on appelle euh, Huis Clos Huis Clos nek film bo xamni day traiter des problèmes de couple mu jóge fa tolanti def un nouveau film film bi mi ngi tudd xaax film boobu Obelus film and animation studio moo ko produire tey film boobu moom lañ war a projeté fii ci CESTI ku xam CESTI xam ni moom mooy kër gi nga xam ni fa la ñuy tàggatee ndaw yi nga xam ni ñoom ñoo war a nekk ay journaliste ñoom ñoo war a nekk ay taskatu xibaar te film boobu lu tax mu am solo lan moo tax tey ñu war ko indi fi CESTI mooy dafa traité thème bu am solo thème bu mucc ayib ñu koy wax liberté d'expression maanaam nit ñi nga xam ne dañ leen di noot surtout sunu journaliste yi ba information bi nga xam ni dañ ko war a jàllale mu yegg ci population bi duñ ko mën a jàllale. bu ñu xusee tur ci histoire bi le vieux Martin vieux boo xam ni seen un ancien journaliste mu bind benn bataaxal war ko jàllale ci presse bi pour contre ñi nga xam ne ñu leen tuddee les tout puissants Martin dina jàllale kër gi ci presse bi.

J'ai essayé de travailler sur la liberté d'expression. J'ai essayé de prendre sous l'angle de la presse, la liberté de la presse. Et la question fondamentale qui reste, qui demeure, c'est la liberté en tant que telle. Sommes-nous libres Sommes-nous libres Parce que ce, ce, ce le protagoniste. Il sait qu'il va partir. Le revenir. Il a eu le courage de faire face. Peut-être son esprit vit encore et vit pour toujours il vivra pour toujours. Il est là. la en projection bi lu lu rafet la lu day entrer en phase ak li ñuy def si année bi yëpp parce que bi moo nekkoon dernier carrefour bi ñu ñu terminé ko en beauté ak euh, projection boo xamante day xaw a indi lu un peu ci question de liberté surtout angle bi ñu ko gën a approché bu ci gën a neex nit ñi mooy par rapport ak article boobu noonu ñu war a bind war ko publier mu xaw indi débat ci rédaction parce que c'est une situation boo xamante ne c'est pas lu lu lu lu occasionnel quoi day am day am yenn saa ci ci ci réaction yi autocensure beeg lu ni mel. dañ siy jàngal aussi te ñu ci gën a aussi euh, autorité yi nga xamante ne suñu autorité univers euh, sestienne yi nga xamante ne ñoo collaboré pour ñu mën am projection bi nii. ak aussi yéen ñi ñëw indil film bi parce que mënoon ngeen ko euh, def projection feneen mais le fait que ngeen choisir fii choisir contexte beeg temporel ak spécial bi yëpp tamit lu ñu lu ñu rafetlu loolu lu ñu rafetlu et c'est intéressant parce que fu ñuy la liberté de la presse ou wala liberté de façon générale ni dañ ciy mais mais liberté de la presse dafa nekk concept on en parle tout le temps Et je pense que bu ñu le film bi euh, journalistes yi am euh, part parce que nous sommes wane journalistes nous avons un travail mu difficile parce que y a des difficultés des obstacles yu leen doon tere ñu def mais n'empêche pas, wane euh, avec beaucoup de persévérance avec volonté mën nañ réussir ce métier parce que c'est un métier où euh, xam bien qu'il y ait des difficultés quelquefois mais toujours avec persévérance nous avons réussir. film est intéressant euh, il fait des efforts bien qu'il sait qu'il est dans un pays avec des libertés limitées mais n'empêche il fait son travail en tant que journaliste. format parce que format bu souvent fini Sénégal donc avons une euh, culture euh, trop euh, cinéma au Sénégal donc parce que nous sommes habitués, il y a des théâtre yi il y affaire des affaires. mais je vois que depuis un certain moment producteurs ont essayé de essayer di cinéma vraiment bi ñu des cinéma donc le format est de 6 minutes et on comprend tout Le film est mënoon parce que thème c'est un thème est assez large je suis ci pendant une heure ou deux mais en six minutes euh, euh, pour comprendre nañ que donc wax donc euh, nañ ko mais je pense que ni action yi donc ko cinéma aussi di nga professionnel donc comme ni ma la liberté d'expression et tout thème thème bu chaque jour mënuñu ko ñàkk wax parce que ku ci nekk nit ki dafa bëgg libre pour mën a wax li muy pour mën a dund liberté ci dundu doomu aadama bi la bokk. fii dëkku yoon la dañu fas yéene doxal yoon jàmmaarloo képp ku wàcc yoon kon yoon la ñu leen tegaat leen ci yoon te néewal tartaay yi. xaax dañ koy teg si li ñuy wax euh, loxoy euh, suñu borom. ndax ñun moom dañuy doon exercer wu man noonu lay faral di waxee exercer wu parce que exercice la ñuy def parce que dañu bëgg nekk réalisateur nekkaguñ ko dañuy jàng pour nekk réalisateur donc tey ci jàng boobu dañuy faral di def ay film xëy na film bi bokk na yi nga xamante ne def nañ ko di ñaan yàlla xëy na mu mu mu mu ubbeeku ñëpp gis ci seen bopp imaginez benn picc buy dox soxlaam ak picc nuñ koy mën a misaalee ci wàllu liberté picc moom di dem di wuti dox soxlaam nga faat ko tey mbir la bu nga xamante ne dama koy yëg dama koy yëg ci ci sama biir bu baax sax dama koy yëg sama xol parce que tey mënuma imaginer nit kuy dox soxlaam nekk ci benn société yi nga xamante ne régir nañ ko par des lois par une constitution et que kooku tey nit ki di revendiquer. lu nga xamante ne tey dañ ko rëdd ci constitution wala dañ ko rëdd ci ci ci ci ci li nga xamante ne mooy doxal réew moo dem di ko revendiquer nga faat ko xëy na mënoon naa gën a yaatal mais ci ci ci parti boobu rek ci parti boobu ci film rek picc boobu di doxi soxlaam ñu faat ko tey misaal boobu lay lay lay moom moom moom lay jàpp ni tey su ma doon joxee exemple bu ma gën a frappé wala moment bu ma gën a frappé ci film bi pap moment boobu la gis ngeen projection wu xaax fii ci sesti à l'université Cheikh Anta Diop gis ngeen réaction yu ci yu ci tukkee téléspectateurs yi réagir nañ représentant wu étudiants yi fii réagir nañu mais aussi kilifa yi réagir nañu donc wane ni nit ñi gis nañ film bi film bi neex na leen film bi nag carrefour d'actualité bi nga xam ni waa CESTI ñoo koy organisé ñoo ci nekkoon en partenariat en collaboration avec Obelus Film and Animation Studio donc phénomène produire donc Disney réaction yi les gens ont aimé nous souhaitons vraiment bon vent au film en attendant on se donne rendez-vous à une autre projection organisée par la maison de production Obelus Film and Animation Studio